murtajan minnatun lana jariun mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw sant yàlla julli ci yenantam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen ñaanal di sakku ci yéen ñaan dellu siwaat ci sunu jataay bi nu baaxoo amal ayu bis gu nekk ñu koy amale fii ci ak ti seen émission bi ñu tuddee madinatu ilmi ñu nuyu mbokk yëpp ñu nekk ci réew mi ak ñu nekk ci bitim réew ak ñi nga xam ne ñu ngi def ay commentaire ak ñi nga xam ne ñu ngi nuyu rafetlu ñaan yi ñu ngi ñaan yàlla nangu yëpp di siyaara bu baax a baax mboolem koo xam ne yaa ngi nuy topp rek ci jataay bi ak yaa xam noo mën a gisee jataay yi nag donte da ko koo rafetlu ak sa xalaat nga ci am ak rafetu ci yow it lépp ñu ngi lay sant bu baax a baax di la këram di wane ne paasi wunu jubbanti te dañ koo soxla lool lool lool nag ñu dellu siwaat tey ci beneen jataay boo xamante ni moom lañ fa sinémal te nag jataay bi dañoo bëgg a wax tuuti ci li nga xam ne yu araam la nu waxee yu araam nag rawatina lu mel ni natt yi nga xam ne jigéen ñi dañ koy natt. ak banque yi nga xam ne dañ ciy dugg di lebalante ndax loolu gis nañ ne waxtu yàlla nit ñi ñu ngi ciy demee noo xamante ni ak xër la ak ñàkk xam ak topp bànneex ak wut alal alal nag dañ ko fàggandikoo ci lu lew lan wax ñu wut ko ci lu lew wala fi dañuy wax ne lu lewut du law te biir bu ci regg ràgg ñu ci bari jàpp na ne bala noo am xaalis danoo bokk ci natt wala danoo dem ci banque ñu lebal leen xaalis ñu business wolbatiku yooyu am na ci yu dagan am na ci yu daganul xam ngeen ne bépp leble bépp leble boo xamante ni buñ la lebalee danga fay booy fay teg ca dara dafa araam maanaam bu fekkee dan laa lebal junni booy fay teg junneeg ñaari téeméer wala junneeg ñaari ñaar fukki dërëm sax dafa araam te gis na ne sunu banque yi ëpp yëpp noonu lañuy ñuy leblante natt yi ñuy dugg dugglante tamit noonu mooy la ci xew. kon yëpp te gis na ne nit ñi ñu ngi ciy demee noo xamante ni ëpp na am ñu ciy demee noo xamante ni sax leeru leen wala xamuñu ko wala buñ ko xamee bëgg nan xam ngeen ne banque bu nu seetloo ne intérêt bi nga xam ne jullit dafa denc xaalisam sax intérêt boobu buñ ko cee tegal sax jël ko dafa araam jël ko dafa araam soo fa dencoon sa alal ñu tegal la ca dara boo ko jëlee dafa araam foo sax boroom xam-xam yi wuute nañ ci ñu ne danga nga koo war a jël wala da ko faa war a bàyyi. ñu ne ñenn ñi ne ah ginnaaw moom moo ko daal bàyyi ko fa ndax moom moo ko ñenn ñi ne déedéet ginnaaw ci yow la bokk moom yaa ko moom li nga ca sañ kay mooy boo ko jëloon ah boo ko jëlee ñëw def ko ci lu mbooloo bokk xañ na nga dikk fay ci courant wala nga dem bënn cib teen wala nga def ci loo xam ne waaye yow nga lekk ko moom sañoo ko moom sañoo ko kon nag yooyu comme dafa araam te buñ lay lebal dañ lay wax loolu buñ lay lebal dañ lay wax ne la soo lebalee nangam danañ ci boo seetlu woon ne ñoom leble gi nii leble tey 500000 boo ko fa doon leb bala ngaa jël taxi yan la cay def daanaka mille lan lay verser nga bëgg fay ay 800000 wala 700000 wala nangam te loolu ngay def lépp dafa araam te li ci gën a yéeme mooy sagg sàgg ba ak sàgg sutura ga nga xam ne moo ca nekk mooy wiise la ni ñëw boo fayit ñu ñëw jël wiise jël say kii banque moom ku ne xam na ne du kii mosu leen a gis benn banque boo xam danoo dem ñu ne danoo perte déedéet. ñoom koy alalu nit ñi ci la ñuy jël te loolu xam-xam bu xóot sax moo ci waroon a wax waaye nag ndax nit nan la mën a dikk di leble wala mu dikk di denc lu ba noppi am ca intérêt luñ cay def ak lan moo ci xew loolu loo war a xam la dëgg la sa xaalis nga sécurité ko baax na ginnaaw boo ko defee ci sa biir mën nan laa kii waaye leb gi nga ciy leb di ci liggéey ñaari néew na lool ku leb ci ay banque ba noppi réussir ca néew na lool ndax alal ji nga ciy le moo dégg nga bis bu nekk nit ñi problème yi ñuy jànkonteel yi ñuy wax xaalis bi ñu leboon banque lan ko leboon ñu ngi nii suñu xaalis nangam ak nangam nan nga mën a lebe xaalis banque ne dem da nga cee bay yow bay bi ngay may ndax yàlla nawet ba dina nangu nawet bu nanguwut banque moo xamul nawet bu nangook nawet bu gànt ñoo yem moom da nga koy fay rek te yow yaa ngi leb ne damaa dem bay boo ci lebee kay seetal lu la leer na pertement du ci am benn seetal nga dem jënd ci pàkk boo xam leer na dina avancé bokk sax wala dara kooku moom perte maa yomb ci waaye lépp ne damaa dem bay wala damaa dem di commerce yi wala nangam ah taxe yeen la cay teg wala nga dikk marchandise mi daanuwaat te banque xamul yooyu banque xamul marchandise mi dafa wàññi wala dafa daanu wala damaa bay perte wala nawet bu baaxul tey xamut yooyu xamu kon yooyu dafa doon yu araam yoo xam nit ki war na koo seetlu bu baaxul ci bi ci gën a yéeme nag mooy nga faatu nga faatu yóbbaale par ndax yaa ngi yóbbaale bor boo xam mënu koo fay ba ca des yaa ngi yóbbaale loo xamante ni ndax bi nga lebee la nga ca tegaat intérêt boobu te boo koo ko fi bàyyi dinañ ko fay danga ko fay na nga lebe woon donte na nga lebe daa araam boo dikkee noonu ngay fayee ndax parce que tey bu fekkoon da leb yàlla tere nga jóge fi boo dikkee banque moo amul da ngaa gaañu mu wàññi la wala dara da ngay fay rek sa la ñuy jël fay ko bu fekkee nag da dem ba fayoo nag te loolu néew na lool ci banque xanaa feneen ci fi ma bëgg a dugg kay foofu la loolu bari waaye bu dee ci banque moom néew na lool ndax banque ba laa lebal danoo xool li nga am ñoom duñ la lebal te xamuñu ban situation nga toll booy leb dinañ xool sa kër ndax am na nga fa armuwal bu ñu fa mën a jaay ndax am nga kër am nga kayitu kër ndax am nga nangam ndax am nga day dem ba leer leen banque moom buy leble moom day leer ne ki muy lebal am na li koy lebal. jigéen ñi nga xam ne waxtu wu nekk ñu ngi dugg ci xeet yooyu ci leb ay banque bis bu nekk nga gis ci ay sëy yu tas li ci gën a yéeme sax mooy euh, waxuma sëy yu ci tas waaye ya ca nekkaat ci ay sew-sew jigéen joo xamante ni liggéeyu dara dem weer wu ne mu bëgg ne day fey ñaar fukki junni wala day dawal ñeen fukki junni wala day dawal vingt-cinq mille wala dara te liggéeyoo dara yow xaalis bi nga yoroon jënde nga koy or wala suwaat dem nga jënde ko ay yére dem nga seey ci say loxo te banque moom ku nekk xam na ni muy doxe day ñëw bëccëgu ndara kàmm lay ñëw moom xaarut guddi xaar ñëw sàng sa sutura dikk génne say armoire yi nga amoon wala say la nga amoon génne ko daal di koy siir dem moom xamul ne xamul ne nan bàyyi ba guddi wala nangam déedéet bëccëgu ndara kàmm day ñëw yow nag gàcce googu geneen gàcce ngay tàbbiwaat da ngay daw bi bàkkaar ba tàbbi ci bu dee keneen jigéen joo xam ragalut yàlla même bu ragalee yàlla sax mën naa fiiru ndax bu na gàcce googu bu ko naree daal mën naa dem ci geneen góor gu ko mën a am mën a jox xaalis te loolu moo gën a bon fuuf fi mu doon daw li wala fii naa di daw ak ki tàbbi ci daay di daw jëmb tàbbi cig jaay loolu lay doon benn bi ci desaat mooy natt yi jigéen joo xam liggéeyu dara mën nga semaine bu nekk nga dugg bokk ci ñeenti loxoy natt bii fële nga koy teg bi nga teg ko fee bee nga teg ko ndawtal yi ngay ndawtal di bind yooyu ngalawaay yooyu coono nan ko bàyyi waxuma coono yi waaye lu araam la loo xamante ni kenn xamut yow kañ ngay faatu yonent bi salaa salaam bu nit masaana faatu day laaj ndax yor na ay bor bu ne ko yor na ay bor mu ne julee leen seen néew jullee leen seen néew daana wax ne maanaam nit bu jihaatoon ñu rey ko mu jihaataat ñu rey ko mu jihaataat ba muy ñeenti yoon nee na du tàbbi àjjana mukk feeg yore na bor bu mu fayut nit ñi xoolal tey lin mel ci ay bor lin mel ci te natt yi rek ko indi yow léegi nga dikk fii bokk ci loo xam xamoo kañ la sa roogi di rot xamoo kañ la sa bakkan bàyyi woo fi ñu ko mën a fay sa jëkkër bi nga daan kii sa jëkkër mënalu la woon a tegal sax dala daan wax yoruma yow nga bokk ci juróomi loxo kooku boo faatoo segam bi nga fi nekkee di dund la sa jëkkër ne moom mënu ko boo fi jógee kañ la koy man sa doom yi ngay bàyyi ndax mën nan koo fay ndax di nga bàyyi doom sax ndax bor boobu nga yoree ndax nit ñi dinañ la ko baal baal gi ci gën a yéeme sax mooy baal ak ku ko mën a baal na ko baal wala ñun natti nan ko baal baal goo xam ka koy baal xolam àndu ji loolu faaw nga fay ko nan wax te carnet yi jigéen ñi yor ak góor ñi di saytu carnet yi nan la jigéen ñi di leblante ndax góor gu ci nekk am nga ci responsabilité sa jabar nan lay bokk ci teg ndax li mu bokk mën na am na teg yoo xamante ni loolu la ñuy def boo dikkee buñ la tegalee boo bàyyee boo buñ lay teggil wala booy fay yow da ngay cee teg dara maanaam nit ki lebal la 2000 ëllëg boo koy fay 3000 ba 4000 loo ko mën a lebal ndax yow mi am doole yi mën a leble ak mën a fay ndax ñëpp am nañ ko noonu mën nañ ko organiser ci noo xam ne dimbali lay doon ku ci nekk sonn ndawtal yi sax dañ koy bind ndawtal déggal jaale yi dañ koy bind diw de nangam la ma jaalee diw nangam la jaale diw nangam di fayeeku te dëj ci yonent bi salaa salaam dafa waxoon ne nit bu faatoo ña ko gën a jege nan togg moom buñ togg sax nan togg ñoom jox ko dafa mel ni njàngalem yonent bi dañ koo déggu léegi nag ñun ñooy jënd ay nag ñooy jënd xar ñooy dem di lebi fi ñu toll boo faatulee rek moom daal di lebi daal di dem demal ci bitig bi mu jox la bitig boo xam mosoo woon a nangoo borom bitig bi mosulaa wóolu sax di la lebal waaye comme xam na ne deele nga te yaa ngi ci dëj te yaakaar nga njaal mi dong nga yaakaar bu ko defee dina la lebal bu la lebalee boo noppee toog di régler ay bor am na ñoom dañuy régler ay bor ba du am luñ fayee sax duñ matal ndax nanu séentoo woon njaal mi demeewul noonu. njaal moo xamante ni xam na ay ñaar fukk ay nangam te yonante bi dafa kon ñu dimbalante gis koo xamante ni buy jaale day ànd ak nit ñu bare bare diw da moo la jaalee lii diw moo la jaalee lii nangam yooyu ay puukare la yoo xamante ni la ciy toppaat ci roy saaba yi roy jigéenu yonante bi nga xam ne ñoo nekkoon ci këram waaye yii ñuy def nga xam ne nit ki li muy lekk lewut li muy jëf lewut li muy def lépp lépp lépp dara lu ci tegu ak alxuraan ak sunna amul ñu bàyyi suñ jigéen ñi di ko def wala ñun ñu koy def néew na lool nag nit ki faatu te duñ ko laaj àqam duñ ko laaj bor yi mu yore woon bor yooyu nañ koy moytu natt yii nan fexe ba moytu ko benn waaye nee na ma nattu yi natt yi moom far yàlla da leen koo teg ay nattu sax ay natt yu du jeex feebar yoo xamante ni tànk yuy metti feebar yoo xam ne kenn xamul lan lay doon alal joo xamante ni saa boo demee ba yaakaar alal ji tas loolu nañ ko bàyyi. nanu wax ci affaire yi ñuy jëflante jëflante bu leer bu yàlla nangu yonent bi nongu ko ñu teg ko ci sunna waaye jigéen mënul toog mukk di natt juróomi natt loolu xel waru cee dal sax bu ko mënoon sax war nga koo limité ndax ña ko mënul mu leen di lor ñooña moo ci gën a yéeme moom mi ko man sax da ko warul woon a defee noonu kon mbokk yi dañu xam ne du liggéey am na ñoo xam ci natt yi yore lu ma juróomi natt loxo bu nekk nga bëgg a teggi nangam bii dama koy teggi jël xaalis yi di lebalante di dugalante di nangam te loola ña ngi koy def ku nekk nga dig ko loolu jaaduwul mbokk yi nan seetluwaat bu baax suñu diggante yàlla xam ne danañ faatu danañ fi bàyyi xaalis bi danañ fi bàyyi alal ji danañ fi bàyyi bor yi xamuñu lan la ñuy fekk ci sunu bàmmeel bu nu dara jaral ñuy jëf-jëf joo xamante ni xam na ne lu araam la ba noppi bëccëg yi ñuy def nit ki jënde nangam lebal la la ko di la ko fayee ko ay juróomi dërëm ay fukki dërëm ay ñaar fukk ba mu koy loola da ngaa def ne araamut lu araam la araam ti faaxan la def kon mbokk yi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp tey daal liñ bëggoon a wax suñu xol sax daf cee xaw a fees ba mun nu koo waxee nin ko waroon a waxee waaye daal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp seexu naa moo nekkoon ci caméraman bi soxna aw moo réalisé émission bi soxna Xadi Ñang moo ko doon monté ñu sant ñëpp gërëm ñëpp di leen jox daje ci yeneen jataay wasalaamaaleykum wa rahmatullah مرتجا منة